asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. association daarul mamburam rawatina daara yi ci association bi ci njiitaluk al cheikh ibrahima xalil lo bu leen di woo ci ndaje bu ñu baaxoo amal at mu ne ci daaray abdillahi ibni mas'udin radiyallahu anhu ren jii nag dinañ ko amal dimanche le juin bu juróom ñeenti waxtu ci suba jotee ñu war fa teral ña fa wattoo alquraanul karim ñoom ñii nag ñooy vingt-neuvième promotion ci ña fa wattoo alquraanul karim kon xew-xew baa ngoog ngaabu la le 9 juin 2024 si juróom ñeenti waxtu ci suba jotee ñu ciy sàkku teewaayu jullit ñépp ngir soxla yeneeni leer yu gën a yaa mën ngeen a woote ci numéro yi affiché ci écran bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bi hadiyihi ila yawmi ddin amma baad mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla leen ko dénk ñu xam ne bokk na ci li gën a mag ci loo xam ne yàlla dana ko defal ab jaam mooy mu jaar ci yoon wu baax sax ca suñu boroom tabaaraka wa taala di ko ca sàmm ci waxtu wu nekk loolu xéewal la goo xam ne bokk na ci xéewal yi gën a màgg yoo xam ne suñu boroom dana ko xéewale ku ko soob ci ay jaamam loolu mooy xéewalu tawfiq wala hidaaya tawfiq baat la boo xam ne bari na luñ koy wax lool ba mel na sax dafa dugg ci làkk wi ñuy làkk yàlla na nga am tawfiq wala lii de tawfiq la tawfiq nag mooy yekkiwal goo xam ne suñu boroom da koy yekkiwal ab jaam ak mbaax ab safaanam nag mooy koo xam ne yàlla da koo xañ ndimbalam ndax borom bi nee nag ku yàlla dimbali kenn mënulaa not waaye ku mu bàyyeeg sa bopp doo am kenn ku la mën a dimbali tawfiq mooy suñu borom tabaraka wa taala waajalal jaam bi jàpp ndalal ko sababi jëf yu baax te bu ca nekkee itam mu sax ca mu xemmem loo ko jëf yu baax waaye soril ko safaanut lépp loo xam ne jëf yu baax la suñu boroom def jëfam yépp muy lu koy may ngërëmul suñu boroom tabaraka wa taala su demee ba juum wala mu gàttal ci mbir suñu boroom ubbil ko buntub tuub buntub jégglu buntub delsi ci suñu boroom tabaraka wa taala al imaam ibnul qayyim rahimahullah day wax ne dëppoon nañ ci na tawfiq mooy yàlla bañ laa bàyyeeg sa bopp ab safaanam nag mooy koo xam ne suñ boroom da koo bàyyeeg boppam ndax lépp loo xam ne lu baax la cosaan la mooy tawfiq rek tawfiq mooy mbir mu jub mbir mu dëppook nam war a mel loolu nag ci loxol yàlla rek la nekk nekkul ci loxol bindéef ab caabeem bi koy ubbi nag ba jaam bi mën koo am mooy mu koy ñaan yàlla ak di fésal aajowoo gu mu ko aajowoo waaye di dëggal wéeru gu mu wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala ak xemmem gu mu ko xemmem waaye ragal gu mu ragal itam suñu borom tabaraka wa taala saa yu ñu joxee jaam bi caabi boobu nga xam ne mooy maye tawfiq kookee day suñu borom tabaraka wa taala ubbil na ko bépp bunt yiw waaye ko koo xam ne nag ñàkk na caabi boobu kookee day bunt yiw yépp tëju ci kanamam suñ boroom nee na moom mooy ki nga xam ne moo leen di bëggaloo ngëm yàlla xababa ilaykumul imaan moo taaral ngëm yàlla ci seeni xol moo leen bañloo kéefar akub ndëngte akub mooy yàlla ñi yàlla defal lool day ñooñu ñooy ñi gindiku ñooy ñooy ñi jub amul benn jaam boo xam ne aaju woowu tawfiqi suñu borom tabaraka wa taala ci sa mbir yépp ndax kat suñu borom nee na bu dul woon mbaaxam ak yërmandeem lu jaam bi góorgóorlu góorgóorlu du tax mu mën a baax wala wala fadlullahi aleykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada waaye suñu boroom mooy baaxe ku ko soob defal ko tawfiq teg ko ci yoonu mbaax walakin allaha yushakki man yashaa wallahu samiun alim xéewalu tawfiq googu nag dee ko mën a am lu dul ci sabab yi nga xam ne moo koy sabab la ca jiitu mooy jaam bi toroxlu mokk ci kanamu boroomam topp ay ndigalam wattandiku ay tereem toroxlu ci kanamu boroomam fésal ak aajo bu mu aajowoo sunu borom tabaraka wa ñaareel ba itam di yéene yéene ju teey yéene ju sell ndax ci kem yéwénug yéeneeg jaam bi ci lay amee tawfiq yu bay ko ci suñu borom tabaraka wa taala ca la koy dimbalee ca la mu yéene te moom mënu koo amal boppam suñu borom mottalil ko yéeneem jooju bokk na ci yi gën a màgg ci sabab yi maye tawfiq mooy jaam bi nag bareel di ko ñaan suñu borom tubaar ko taala di déeyaaleeg moom ndax suñu borom mooy wuyu ñaanu ñi nga xam ne dañ koy ñaan mooy jox ñi nga xam ne ñoo koy laaj mooy xettali ñi nga xam ne itam dañoo jaaxle dañoo nekk ci tumrank bokk na ci sabab yi xañee xéewal tawfiq mooy jaam bi sàggan ci boppam neenal boppam jéemu la sellal bakkanam yar ko yarum ngëm yàlla yarum ngëm yàlla boobu nga xam ne ci la bakkanu jaam bi di yëkkatikoo ci àdduna waaye ci lay texe itam àllaaxira ni ko suñ borom waxee ne wala siina jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana ñi nga xam ne dañuy jihaad ci man yàlla li ñuy def ci ay coono ak effort yépp yàlla tax ñu di ko def di woor di naafila di joxe seen alal di def lépp loo xam ne aw yiw la ñooñu suñ borom nee ne danaa leen defal tawfiq teg leen ci yoon bu jub bi ku settantal alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana xam ne tawfiq ku ko am màndarga yu bari dana fes ci moom bokk na ca màndarga yooya day doon koo xam ne day na ci jëf ju baax ak topp yàlla borom bi nee na wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faasa fawzan azima kii topp yàlla ku yonentam kooku day taxe na taxe gu mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom su nammee ci ab jaam aw yiw da koy jëfloo ñu ne ko naka la koy jëfloo mu ne da koy defal tawfiq mu jëf-jëf ju baax joo xam ne moom lay faatuwaale balaa faatu suñu borom dana ko jàpp ndalal jëf ju baax joo xam ne ca lay ne ba dee fekk ko ci bokk na ci màndarga yi ku am tawfiq itam yéeneem day sel yéeneem da cay génne lépp loo xam ne la ko doon rax la ndax kat suñu borom nee na du nangu lu dul lu sell qul inni umirtu an abudallaha muxlisan lahu diin waxal ne man day dañ maa digal ma jaamu yàlla waaye nag ma sellalal ko diine bokk na ci màndarga yi tegtale na jaam bi am na tawfiq suñ boroom wërsëgal ko rafetuk wàkkiirulu ci yàlla mbiram yépp mu wéer ko ci suñu borom tabaraka wa taala jooyal ko ci moom ni mu ko waxee woon ci Shuaybu alayhi salaatu wassalaam bam ne wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib nee na man day lépp lu ma am ci tawfiq ci mbir mu jub ci suñu borom tabaraka wa la bàyyi ko ba tax na ci moom laa wàkkiirlu ci moom laay tuub di dellu si waat bokk na ci màndarga yi ku am tawfiq itam ab xolam day aju ci àllaaxira muy jëfitam jëf di koy jariñ alaaxira ndax borom bi nee na wa man araada al wa saa laha saayaha wa mumin fa ulaika kaana saayuhum mashkura ku bëgg àllaaxira ëllëg nga texe danga koy jëfal jëfam te fekk nag nga am ya ngëm yàlla bu mat sëkk nee na kookee day jëfam suñu boroom tabaraka wa taala gërëm na ko te sant na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne koo xam ne àllaaxira mooy yitteem suñu boroom dana def am koomam ci ab xolam dana ko dajaleel itam mbiram yépp ay mbiram du tasaaroo te itam àdduna dana ko dikkal doonte wutu ko koo xam ne nag àdduna rek la yittewoo nee na suñu boroom day def ak ñàkkam ci ay bëtam lu mu woomal woomal day jàpp ne moom ko ñàkk la ak ñàkk rek lay gis ndax as seytaan yaa idukumul faq seytaan yi toujours da lay dig ak ñàkk di la wan ne dangaa ngaa ñàkk di la xoolloo ñi nga xam ne ñoo la ëppale fuuf ba dootoo gis li nga am te itam kooku suñu boroom day def ay mbiram tasaaro te itam du mën a am nag ci àdduna ak lu mu ko wut wut du ca mën a am lu dul li yàlla dogal ci moom rek bokk na ci man mandarga ku am tawfiq itam day takkoo tuub day takkoo di delsi ci borom bi tabaraka wa taala ndax kat suñu borom nee na wallaahu yuridu an yatuuba aleykum yàlla da leen bëgg a baal yàlla da leen bëgg a baal waaye nag ki muy baal nag mooy ko baal wa inni la xafaarun liman taaba wa aamana wa amila salih wallahu yuridu an yatuuba aleykum wa yuridu lasina yattabiuna shahawat an tamilu maylan azima yàlla moom daf leen a bëgg a baal kon ku baalu rek mu baal la waaye ni ñi nga xam ne nag dañuy toppi bànneex moom dañ leen di bëgg a yóbbaale ca loolee ñu nekk ba ngeen jeng-jeng goo xam ne bu màgg la bokk na ci màndargay ku am tawfiq itam day bëgg topp yàlla day sawar lool ci jaamu yàlla waaye safaan ba ci lépp loo xam ne lu baaxul la dafay bañ suleymaanu nee na ñi nga xam ne dañu jaamu yàlla guddi ni guddi gi di neexe ci ñoom moo gën a neex fuuf ñi nga xam ne guddi gi moom dañ koy fo ba asamaan set po mais ñuy def lu mu neex neex ci ñoom ñi koy jaamu yàlla la gën a neex ci ñoom mu ne moom day budul woon guddi duutu bëgg a des ci àdduna nee na guddi rek moo tax mu bëgg a des ci àdduna ndax dafa mel ne dundu doomu aadama bi yàlla da ko séddal bëccëg bi yaa ngi ñun ñee ko bokk guddi gi nag yaa ko guddi gi moom bu jàmm xewee rek yaa ko moom loo ci bëgg a def ci jaamu yàlla mën nga koo def kenn du la déranger kenn du la yàqal sag jaamu yàlla bu dee bëccëg bi nag yaa ngi nit ko bokk mën ngaa nekk sax ci jaamu yàlla nit ne la da laa soxla moo tax kon guddi lu mat di profitoo la moo tax borom bi naan yabiituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama ñii de dañuy fanaane dañuy fanaane xam nga mënee su ko yendoo waaye mën ngaa fanaanee jaamu suñu borom tabaraka wa ndax liberté bi ngay am ci guddi gi bokk na ci màndarga yi tegtale na jaam bi am na tawfiq mu xër lool nag ci fa mu toll di jàng diine bi diine kenn du ko mokkal kenn du ko jeexal foo toll da koy jàng foo toll da koy fàttali saa yoo ci rombaatee da nga ciy gis loo xam ne bàyyiwoo ko woon xel seetantaloo ko woon ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku yàlla bëgg ci moom aw yiw daf koy déggloo diine kon dégg diine mooy sababu ndax diine ci lañ mën a amee lu baax mbooleem lu baax suñu borom ci diine la ko def diina jooju boo ko déggul xamoo ko nag danga nga bëgg lu baax mais doo xam foo koy wutee ak noo koy wute bokk na ci man mandargay ku am tawfiq itam day tasaare lu baax di ca woote ndax borom bi nee na wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min al muslimin amul kenn ku gën a rafet ay wax kuy woote jëme ci yàlla di jëf-jëf ju baax te fu mu toll moom di wane ne ab jullit bokk na ci màndarga yi ku am tawfiix itam fu mu day dox ci luy jariñ nit ñi ak luy faj seeni aaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ahabbu nnaasi ila allah anfa'uhum linnaas yàlla ki ko gënal ci nit ñi mooy ki ëpp njariñ ci nit ñi bokk na ci màndargay tawfiix itam gërëm dogale yàlla yi nangu atteem yi wuuteeg naafiq yi nga xam ne suñu boroom xam la na ne ñoom boo leen wooyee ci ñu topp yàlla ak yonentam ngir mu àtte seen diggante isa fariqun minhum muridun am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy dumóoyu wan gannaaw loola bokk na ci man màndargay ku am tawfiq itam suñ boroom da koy tarale doylu day doylu walis li nekk ci loxol nit ñi du teg bëtam ci li nit ñi yor waaye moom li ko yàlla wërsëgal rek loolu lay doyloo loolu lay xool yonent bi sallallahu alayhi wa nee na texe na koo xam ne yàlla wërsëgal na ko ak doylu mu doyloo li nga xam ne moom la ko suñu borom tabaaraka wa taala jox mbokki jullit kon nañu xer ci lépp loo xam ne sabab la bu ñuy eggale ci ñu am tawfiq suñu borom tabaaraka wa taala tawfiq nag du ñu koy jàppee ci mbiri àdduna rek ku am alal walla mu am daraja wala mu am cërub àdduna ñu ne borom tawfiq la déedéet mbir yi fii du àdduna yëmul fii ci àdduna rek àdduna jaaruwaay la rek jàll ku am tawfiq mooy koo xam ne mbiram jub na ci lu koy may ak taxe ëllëg yowmal xiyaam moo tax kon mbir la moo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala rek moo koy joxe waaye itam nag ci sabab yi nga xam ne moo koy waral te mooy di rafetal say jëf di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala di rafet njort ci moom ci ne dana la xéewale xéewal bu mag googu di xéewal tawxiid di xéewal tawfiq yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala defal wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu association daarul istiqaama ak mbooleemi mamburam rawatina daara yi banqaasoo ci association bi ci njiitaluk al cheikh ibrahima xalil lo bu ngaabu ñoo leen di woo ci ndaje bu ñu baaxoo amal at mu ne ci daaray abdillah ibni mas'udin radiyallahu ren jii nag dinañ ko amal dimanche le 9 juin 2024 bu juróom ñeenti waxtu ci suba jotee ñu war fa teral ña fa wattoo alquraanul karim ñoom ñii nag ñooy vingt-neuvième promotion ci ña fa wattoo alquraanul karim kon xew-xew baa ngoog ngaabu la le 9 juin 2024 si juróom ñeenti waxtu ci suba jotee ñu ciy sàkku teewaayu jullit ñépp ngir soxla yeneeni leer yu gën a yaa man ngeen a woote ci numéro yi affiché ci écran bi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu